gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi ajaban sëriñ Masamba Kanni nii fàncanne xutbu ya falañ ko tànne moo gëm sëriñ Tuubaa te gëm rasuulu te am tasawufam baam wusuulu asiiru mahal abraari xiina asiiru wasannaidani hunaaka asiiru asiiru mahal abraari yasiiru bi al jazbul خديما له وهو الخديم يمير وجوهي على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير Bousso Maram di doomi sëñ Daam Bousso moom sëñ Masamba Kanni moom Serigne Bousso bi eh, mi ngi leen di ziyaara bu baax ci turu suñu kilifa gi nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Fadil Bousso di xalifa Serigne Masamba Kanni Bousso mag ci njaboot gi ñu ngi koy ñaanal yàlla sàmm ko aar ko te guddal fanam te may ko itam ak wér te sàmm mboolem ay rakkam ak ay doomam ak i sëtam ñoom ñëpp sama boroom defal leen jàmm ak xéwal yaatu di ndokkeel jullit yëpp di ndokkeel ñëpp itam di ndokkeel njaboot yëpp it ci bis bi nga xam ne ci lañ nekk mooy bis bu ñuy fàttalikoo suñu maam Cheikh Massamba Kanni Bousso doonoon jàmbaari sëriñ Touba Khadim Rasoul liggéeyal ko ba Serigne bi gërëm ko gërëm ko gërëm loolee nag bokk na ca lam ko firndeele mooy wan ko yonente bi alayhi salaatu wa salaam yaxasatan laa mu gis ko jaxaran ak i gëtam loolee la ñuy fàttaliku tey yii fii ci Touba Darou Khadim euh, Serigne Mourtada waaw côté organisation bi day xam nga yu mel nii day bis yoo xam ne euh, da nga koy def ngir defal ko sa maam waaye day mujj doon bis bu làmb dëkk bépp te boo xoolee Daarul Xadim dëkk la moo xam ne li fi nekk ci ay kër ay junni junni junni la yu baree bari yoo xam ne ñun ci bopp sax xamuñu lim bi nu mu toll ngir bari waay bi loolu nag boo ñëwee di amal bis bu mel nii di jàmbaari lislaam di jàmbaari Cheikhul Khadim day daal doon bisub ñëpp dootu doonati bisub askan wala bisub famille wala bisub sant wala yooyu waaye bisub dëkk bi la bisub dëkkandoo yi la bisub tund yëpp la moo tax ñëppay ñëw ci bis bi dugg ci waañ wi nekk ci liggéey bi ànd ko ak ñun di ñu ci jàppale bu baax a baax ndax yëg guñ yëg ne ñoom seen bis ci lañ nekk kon lu ni mel dana laaj organisation boo xam ne bu yaatoo yaatu la waaye njëkk bis bi amal nañ ab réunion boo xam ne amal nañ ko ak euh, le sous-préfet monsieur Abdoulaye Kharma fële ca bureau ñu mu joxe woon ay leetar yoo xam ne séddale woon na ko yenn service yi ngir ñu mën a ñëw taxaw fii lu jëm ci éclairage public bi lu jëm ci wàllu lenn ci setal euh, désinfecté yenn bërëb yeeg yooyu pompe wala ñu ñëw manqué yenn kër yi wala yooyu yëpp lu ci nekk wax dëgg yàlla engagement yi nga xam ne digge woon na ko ci lenn lu ci nekk itam def nañ ko na mu waree te it bi mu ko bindee ba noppi dafa wax ne sax ku ci defut liggéeyam na ngeen na ngeen ko signalé waaye ay la yéwén ñëpp def nañ seen liggéey ndax bi ñu xëyee tey jii sàppoor ñëw nañ lu ko jiitu waa Sénélec ñëw nañ fi defaraat làmp yi nga xam ne moom lañ soxla ko ko defar waaye itam ñi nga xam ne ñoo yor service lépp lu jëm ci wàllu seetal ak yooyu ñoom itam ñëw nañ fi ba def la nga xam ne woon nañ ko kon ci wàllu organisation loolu moo ci jiitu bi ñu ñëwee ba ci bis bi ànd ak daaira Hadaaiqul Fadaa'il muy fédération bi nga xam ne moo tëkkale moo moo lëkkale mbooleem njabootug sëñ Massamba Kanni gi nga xam ne ñoo jaayante ak moom mooy ñi nga xam ne seen i maam sëñ Tuubaa dalee jàppoon ci seen loxo teg leen ci loxol sëñ Massamba Kanni ñoom itam ñuy sàmm loola ba gisub tey jii ñoom fédération bu mag a mag lañ di daayira bu rëy rëy mbooloo mu bëree bëri dajale nañ seeni i yi niñ ko baaxoo defee ngir bis bi andi ko joxe ko ñu boole ko ñun suñuy addiye ànd di dundal bis bi ñoom boo duggee ñoom ñoo nekk ci waañ yi ñoo nekk ci lépp lu ko jiitu set setal nañ dëkk bi bale penc mi ba mu set wecc bale kër yi ak ruq-ruqaat yi ngir waajale ko bis bi tey jiitam itam ñi ngi ci biir di togg xéewal yi ngir fas yéene séddale bernde yi nga xam nga bis yu mel nii lépp am na ci solo waaye li ci ëpp solo mooy togg aw ñam joxe ko ndax aw ñam joxe ko alxuraan ko gërëm te amul yoon wu ko gën a gaaw ci yeggale nit ci boromam ndax wa yut'imuuna taama ala hubbihi wa yatiman wa asiran wa asiran innama nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura moo tax joxe ñam dafa doon loo xam ne suñ borom da koo digle te da koo bëgg ñu di ko def rawatina tund yu mel nii nga xam ne aw tund la woo xam ne ñu ci bari ay sancaan lañ ñu ci bari seen loxo jotut seen dëgg gannaaw benn bi ngay ñëw gàddul leen fi ab añ mbaa nga gàddul leen fi ab reer loola bul xam tiyaaba ji ni mu toll te suñu maam yi nekk barsaxal muhammad yi ñoom lañ gën a bëgg mooy loolu jël aw ñam joxal leen ko koo xam ne ku ko soxla la ngir sàkkul leen ci tiyaaba ngir sàkkul leen ci yërmande yàlla loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy def ci bis bi ànd ko ak njaboot gi bi ñu xëyee itam tey ji ci bis bi jàng nañ alquran ni ñu ko baaxoo defee dundal ko ci njàngu xasaayid bu ci kanamee nag dañuy wéyal bernde yi bu ñu demee nag ba julli timis ba noppi ñu ànd dugg ci baas bi waa dëkk bépp génn ñëw euh, ñu dundal bis bi ci conférence ànd ko ñi nga xam ne ñoom lañ jagleel bis bi mu njabootu sëñ Mor Soxna Bousso di taawu Serigne Sa Bousso ñoom la ñuy àndal bis bi ba mu jeex tàkk ndax ñoom seen bis la bu ñu leen ko jagleelu sax seen bis la waaye rawatina nag bi ñu jëlee bis bi moomal na leen ko ñoom danañ ñëw incha allah ñu ànd conférence bi sëñ Bassir sëñ Abo Mbacke moom sëñ Bassirou Mor mooy war a def si waxtaan wi mi ngi ko war a tënk itam ci euh, méthode bi sëriñ bi daan tarbiya sëñ bu mag bi méthode bi mu daan tarbiya nga xam ne ci la tarbiya sëñ Massamba Kanni mi ba mu am ngërëmam tarbiya ci mag ñu baax ñi àndoon ak moom ñëpp kenn ku nekk ci ñoom euh, méthode boobu sëñ bi daan jëfandikoo nga xam ne méthode bu wuute la bu doon soppiku la selon nit ki ci boppam am na koo xam ne ci xiif la ko tarbiya am koo xam ne ci ci ci ci ci ci def ko luy nuru ne dara jaam day wàcci maanaam luy nuru ne euh, loo xam ne xeeboon na métier mooma jàppoon nañ ne moom waru koo def sëñ bi def ko ko ngir tarbiya ko ci am na koo xam ne ci bind am na koo xam ne ci xam-xam ku nekk ak la tar lam la doon tarbiya méthode boobu sëñ aboom sëñ Basiru Mor dina ko yaatal fii ci baas bi incha allah taala loolu mooy programme bi nga xam ne moom lañ fas yéene dundal tey loolu day moom jafe-jafe la yoo xam ne buñ ko waxee waxal ko waxal ko ñu ko soxla dëkk bi dëkk la boo xam ne wax naa la ko léegi li fi nekk ci ay sancaan kenn xamul nu mu toll ñun ñii sax xamuñu nu mu fii ci sow ay junniy junniy kër a fi nekk fii ci gànnaar bi mooy fi ñuy wax bustaan nga xam ne mooy natt bu mujj bi la fa nekk ci kër ay junniy junni junni la fii ci penk bi noonu kon euh, te bari na ñoo xam ne ndox mi ndox mi ñu bëgg di jot sax ak siwut ci ñoom <clears throat> am na ci jéego yoo xam ne man maa ko ci daan def am na ci boo xam ne fii ci soow bi ndox miñ doon naan man dem naa ba yegg fa mu nekk ndox moo xam ne man biñ ma ko joxee mënu koo naan man personnellement te man ab donga laa boo xam ne lu ne mën naa koo naan lu ne mën naa koo lekk itam waaye ñu ma ko joxee am na xeet goo xam ne guu boo xam ne guu bi ndoxum foos di am moom moo am ci ndoxum naan moom boobu dañ ma ko jàmbat ma dem fa ngir gisal ko sama bopp ci laa mujj dem ci kilifa ku mel ne sëñ Abdou Moussa Cheikh Gaynde Fall mu may ma un kilomètre ndox ma ñëw indil leen ko xëccal leen ko ci teew bu neex bi ba ñu ngi koy jëfandikoo te un kilomètre boobu sax doyut noonu lañ ko soxlaa fii ci penk bi soxla ko feneen ak feneen lu jëm ci éclairage public it noonu lañ ko soxlaa fii ci dëkk bi <coughs> ndax boo xoolee guddi bu la fekkee penc mi sax liñ fi soxla ci éclairage public amuñu ko làmp yi du doy Tuubaa ca kanam xam nga amoon nañ programme boo xam ne ñoom liggéey bu am solo boobu ñuy def muy muy muy muy éclairage public bu war a jóge ci talib mbeleel euh, bi romb nii jombul ay jamono dina mën a agsi fii waaye ñu ngi leen ciy tàllal loxo luñ ñu ci mën a dimbalee ñu dimbalee ñu ko ñoom waa Touba ca kanam ndax dëkk bi soxla na ko xam nga àll bu mel nii léegi dafa bari euh, ay ay agression yu fi am bëccëg sax dañ ko fi agressé boo demee fii rek dama ko fiy dégg lu bëree bari ci kaw ndem fu ñuy agressé bëccëg nag jàpp naa ne guddi buñ la jekkoo mën nañ laa bañ a te loolu li koy li koy sabab mooy manque de sécurité manque sécurité nag bu ci lëndëm dolli ko maanaam manque d'éclairage public su boobaa jafe-jafe lay doon kon dafay mel ne loolu ñu ngi ciy tàllal loxo maire bi waaye ñu ngi ciy tàllal loxo Touba ca kanam ndax ñoom gis nañ liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi te ñu ñi ñëpp ñu xam ci lu bëree bëri muy éclairage public bi ñuy def muy ni ñuy dimbalee nit ñi ci assainissement ni ñuy dimbalee nit ñi ci jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi koy jànkonteel ci seenu dund moo xam ci social la mbaa lu mu mën a doon kon ñi ngi leen ciy tàllal loxo bu baax a baax a baax a baax a baax en tout cas loolu bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi koy dund fii ci dëkk bi ak yeneen yu bare bari yoo xam ne xëy na mu ne wax yëpp ndax itam du euh, bëgg ñoo doon ay ñuy jàmbat ñoo bëgg a doon ay santkat ni ko sëñ waxee woon wax ne jaay naa sama njàmbat jënde ko ak cant loolu lañ bëgg am nañ ci dara lu ñu ci mën a jàppalee te jàppalee ko njaboot gi fi dëkk ñu def ko ndax seenu njaboot la suñu njaboot la ñun waaye ñoom tam seenu njaboot la kon loolu yi mooy li nga xam ne bëggoon nañ ko ciy jàppale bu baax a baax وهو وزير ومنه لذي النورين أبخي رضاه كما فاز بالنورين ووصفه على والد أباد الوداع بالسيف وهو سيره على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جاهد بي سكفور بهم أتجي من مالك نصره على زبي سلك بالتسليس حين تجور يسنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا له الكل سميه tantafi naarum xadan wa sabuur منزلا صلاة تقيم السوء حيث أسير على من به خديا أنا منه منزلا صلاة تقيم السوء حيث أسير على من به خديا أنا منه منزلا صلاة تقيم السوء حيث أسير Tawfekh ju rëy